waaye ku ci bëgg a am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05.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 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ñaan mu yàgg fi lool te ànd bir ba mboolem sumbul ak naaj wu rëy yi mu am ci lislaam am ko ci yoon wi suñu borom may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ci barke Sëriñ Tuubaa yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak i ngërëm ko ci ganam bii di président de na ñu ngi baax a sant di la gërëm di nuyu soxna di soxna Mariam nga xam ne moom itam Serigne bi xam ne yitteem ak taxawaayam ci moom ak jàppam ci lu yàgg ba tey xam naa dinaa ci dellu si ci kàddu yu ma yóbbante ci yow di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp te bu la tuddee rek mu mën a yóbbaale njëriñ ñëpp di fàtte waaye ñëpp tamit di ay jàmbaar ci biir kër gi di jàmbaar ci seen digg ak sëriñ bi kenn desut kenn ku ci ne da nga seq bi rafet na bu baax a baax kon nag sëriñ bi wax na ne ñu ngi lay dalal jàmm fii ci Touba ci waajtaayu bis bu tedd bi ñu jub si ngir nag sàmmanteeg fi àdduna toll ak fi waxtu wi ñoo tax ku ne xam na ne dundee wu ndam daa demee ndax mënoo tere dara ba noppi wër ko di ko woote te xam na ne xam na moo taxoon sëriñ bi yónnee ci kilifa yi nga xam ne ñëpp ay rakkam lañ ñu ci des ñëpp di doomam ñi ci des te ak ay taalibeem tamit Cheikh Serigne Touba yi xamal leen ne kat ren ni mu demee tax na moom bu fi toogee rek teewaale na fi njabootu Serigne Touba yëpp ñoom ñëpp itam ñu ci xam ne fépp fu Serigne bi nekk wala ko agsi ci moom ku ne rek kenn ku ci ne yónnee nga fa sa ndaw te Serigne bi itam xame ko noonu rafetlu na ko bu baax a baax kon ñi ci ñàkk mënta tudd rek mën a yóbbaale yi ci des ñëpp mooy Serigne Issakha Mbacké mi nga xam ne mu ngi fi jotaay bi ak rakkam Serigne Abdou Fatah rakkam Cheikh yóbbaale mboolem njabootu Serigne Touba gi fi teew yëpp mu mën a yóbbaale ñëpp bis bii nag di bisu Serigne Touba xam ne moom moo la yëkkati ngir ànd ko ak sëriñ bi mooy bis boo xam ne dafa rëy ci moom ndax lépp lu am rek ci lañ ko am ndax bis bi bu Serigne Touba demutoon ci géej gi li ko waxee kon. ñëpp dañu tàbbi ci kéefar lislaam far kon nag dafa jot lislaam tax ñu moom suñu bopp kon bis bii lépp lu am ci lañ ko amee moo tax nag sëriñ bi fonk ko lool xam ne sëriñ Tuubaa moo ko santaane woon te daa ko jëfal bu fam lépp mu delloo ko ci yàlla wax ne na ko ci ñëpp sant la yàlla ba mu nekkee ca liggéeyam bu tedd ba ca nattu ya la ko tàmbalee yéene waxtaan wax ne ka tertu يوم الشرط عند جلوى بعد الجهاد وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راد لي العدا وساق لي أهرادا فزت لدى جلوى وعند بأفلي بما جيء كل ما أفلي من المغرب متي وخال لي ده نويت شكره لدى دار السلام وعند توبة بجسم وقدم وهنا كفو بري بري كون لو موي بس بي خمني ci suñ suñu borom jeexal na tam yëpp mboolem lu mu amee ci ko amee kon nag Sëriñ Tuubaa ci jikko jikko suñu borom defal te mu wéet ca mooy la ko kenn ci euh, benn commandant de cercle bu nekkoon Jurbel te mu bari xam ko mu tuddoon Antoine euh, Leserve euh, ci 1918 benn rapport bu am solo. ñu bindoon ci Serigne Touba wax ci wax ju solo wax ne la de Cheikh Ahmad Bamba xutwatun euh, fitriya nee na Serigne Touba suñu borom defal na ko xuwa euh, fitriya mooy force boo xam ne kenn xamul fu mu jógee nee na itam topp gi ko nit ñi topp itam jéggi na dayoo ba kenn mënu ko misaal ci xel nee na jural na leen tam lépp lu ñu leen digal ñu def ko te duñ ko te te duñ ca xalaat. mu ne Cheikh Ahmad Bamba mu nag maa ngi seere ci moom ne eh, ñi mu jëkkoon di am biir mursalin li ñu màgg màgg ak li ñuy siiw siiw bu ñu dellu si waatoon dañuy ñaan ci jikko yi ko yàlla defe na mais nag bokkoon na ci jikko yi rek mooy yéene ñëpp jàmm xamuwul ab soppi ak moom loola waral Sëriñ Tuubaa bis bi nga xam ne ci lañ ko jël natt ko mu jël ne jéggal naa sama noonu yëpp. عفوت عن الأعداء طرا لأتمم نفاهم لخير سرمدا لسأبه ba noppi ñaanoon suñu borom itam ne ko bu ma tukkee boo njëb si xéewal yoo ma fa jële yëpp yàlla nga ko jële sotti ko ci mboolem sama askan muy Sénégal gépp nga xam ne yemaloo ko ci ñu ko yaakaar waaye képp kuy nekk Sénégal rek Serigne Touba fàggoo wàllu dara ci biir ñaan bi mu wax ne lii aw sili lazi uridu wan faay biyal wara mu wax ne am ñu kon loolu mooy bis bi nga ñëw tey kon sëriñ bi nee na ngi lay sant bu baax a baax di gërëm ci sa digg ak ñoom ndax loolu itam li ko waral euh, suñu bo euh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xaddis ba ne al abdu lam yaskur nii maa lam yashkur man ajraytu ni'mata ala yadihi jaam bi sant ma li fi sant bi comme jaaware jaam jaaware jaarale xéewal gi ci moom kon nag nee na suñu borom mi moo leen boole. jëkk ngay ne ci jataay bi moo woote nekkagutoon ci jataay bi mu gis le am ci yaakaar am ci ak cofeel gis sa yar ak say teggin mm-hmm. ak fonk gi nga ko fonk te bam la xamee ba liggéey tamit gisutoon lu mos a soppiku ci loola ba yàlla def nag mu nekk jataayu Sëriñ Tuubaa bu mu nekk jataayu Sëriñ Tuubaa bi itam nee na sa yaakaar dolli ko ci moom nee na kon nag mu ngi lay sant di la gërëm di ko seere taalib yëpp ni mu ko waxee woon ci bi muy woote màggal gi mm-hmm. wax ma ci lan ngeen lan ngeen itam lu ma lu ko sant rek li ma denc sama xol moo ko ëpp ma suñu moom jàmm ma suñu dara ci fitne du agsi ci moom loolu nag lépp lu ma ci man ci ñaan ak taxawu ko dinaa ko def kon nag nee na sag cant sa diggante moom ndax li ko waral itam nag bu cofee gu doxee seen diggante moom euh, njabootu Sëriñ Tuubaa gi dem ak taalibe yi nee na waxtu wu ñu ngi lay yónni ci di la wax ay yitte yu jëm ci njaboot bi nee na bu sonoon nag ni ñuy doxalee sa diggam moom mooy dalay may may jàmm du la du la wax du la wax jënd soxna ndax bëgg nga mën a def sa liggéey kon lépp lu mu yëkkati na ko rek ci yitte njaboot gi nag. nee na loolu nag da koo sant nañ ndax moo fi bàyyi bu sonoon njabootam gën a ci seen ginnaaw lépp kenn du ci am dara fitna kenn ku ci la nga bëgg tam mu mu ci mën dana ko def mm-hmm. nee kon nag cant gi la fi jiitu. mooy lim lay sant ci njabootam bi lu ci ne nga def ca ba def ci rek kon loola nee na faaw cant gi mu béyoo ko ba ñoom ko seqal ko kon nag nee na ñu ngi lay seere ne la mu la waxoon rek Serigne Touba mi nga xam ne moom ngay jëfal na nga xam ne jëflantewoo kenn ku dul moom moom mi ngi jëflanteel nag ne la wóor ne bu fayee saxul dana sedd te li weesu itam xam nga ko ci kon nee na na sam xel dal te sa yor rafet ndax dëkk bi kat. yëg ne suñ bu yore yi nga xam ne def nga ko mm-hmm. am na ci yow ci lim waaye am na ci sax yoo xam ne fàtte nga ko lu mel ne trip 30 bi nga xam ne mat na 11 milliards ak assainissement bi nga xam ne ñu ngi koy def ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ko waaye bu ñu toogoon di ko lim dana bari xëy na bu màggal yi jeexee ba ñuy leeral dañ ko gën a leeral waaye sëñ bi lépp leer na ko sant la ci gërëm na ci kon noonu ñu ngi lay ñaan ci yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom dolli la kàttan dolli